tarawlu leenu sant soxna jaara ngir moonu may li tax nu sampi daara tarawlu leenu sant soxna jaara ngir moonu may li tax nu sampi bu leen ma tàngamlu bu leen ma tàngal bu leen naxal ndoxum ki leen di tàngal <coughs> karaw du leen nu sant soxna jaara ngir moonu may tax nu sampi daara bu ma tàngam loo bu ma tàngal bu leen naxal ndoxum ki di tàngal jalantu leen tew bi seeni ak seeni xol ma ubbi seeni bopp ca génne seen bagaani xol te taaten mam jaaro waamele ku naan yaabon taw na bawal taw na kajoor ak njaambur bawal ngaan ku mar ëllëg dob jaambur waaloo ngi wal wali gental waalo ngir naan ci géeju doomi asta waalo jaamam jaaraam ku am jaaraama yaa kaasa doobay karaama jaaraamam jaama maste ma seeru poroxaan jaaraama ma maste ma seeru neewel te géej gi neex na waaju naan ci farwel jaaraamam jaara ma seeru poroxaan na xuut de yoo noo ngi detam ba coroxaan gànnaar de tem nañu banaan ba mandi yaay mbambulaan sam nu xajul ci xandi ñëpp a ngi mostab liggéey ba saalum fuute futtiku nañu sagen ne maalum yow sa añub liggéey bi dem na penku dem soo baara kàlla liirug faggu yakkal nga waa jeejee yakkal waa jeeri ba ñëpp gi jël yow bayoo fu joore may ganga bay nga bayaay ndande jigéen ñi booyal yow nga bay bandindi jigéen ña soxla ñoo yaa doon soxna daanaan nga um nga lambi doomi soxna jigéen ñi soxla la yaa doon soxna daanaan nga um nga lambi doomi soxna moo tax jigéen ñi seeni doom ne meŋ jiree rek feeñ yow sa doom ne feŋ moo tax jigéen ñépp seeni doom di xaadam di gonte kay xëy yow sa doom di yaaram moo tax jigéen ñi seeni doom di xaadam di gonte kay xëy yow sa doom di yaaram yaa tax jigéen ñépp seeni doom seex budul ko nag yow noo ngi dama bay soox tëkkalel ak jigéen ñi bu sabali xaw naa araam mel na la yàlla gi xayli tëkkalel ak jigéen ñi bu sabali xaw naa araam mel na la gi xayli di tudd seeni doom di tudd bamba araam na moom rek ka attan ba yow yaa bu sabali ñàkkoo cangaay ndeka nga jóg sang nu jox nay gaay yaa jigéen ñi seeni doom di mel yaa jigéen ñi ñépp yaa jigéen ñi lamasu ay malfa nuy soli aw sa fu soom nu jël ba yaa jigéen ñi lamasu ay malfa nuy soli aw sa soom nu jaar fa jigéen ñi dañ daa di woddoy soppe góor ñi pii ji baxa ñooy roof roppi yaa suturaal awre dindi joote mbakke nga mel na ndar jabaa ngay juuti laam fa gétti ndar te si ndooni yoon ngu ko waa Tuuba gadeg si laam fa gétti ndar te si ndooni yoon ngu ko waa Tuuba gadeg si jaaraamam jaara ku xem jaaraama yaa kawal sa doomaray karama jaara maam jaara am maqaama yaa ka wal keroog bisub qiyaama jaara maam jaara am ay xarbaax yaa ka wal sa dooma feeñalug baax jaara maam jaara kuy faj aajo yaa ka wal sa dooma faj naajo jaara maam jaara am widaaya yaa ka wal sa dooma am widaaya jaara maam jaara ku am tey junne yaakaar sa dooma jommal jinne jaara maam jaara saarful jiili jox naa la jukkay rabit yeemu jum nga jubal tey jàpp yow tey julli tey jàng tey joxe baleer jolli te jikko yi mooy bëgg lim amoo bon ña ko amoon yaroo leen daawu doo janni daawula jey doo jeyu doo jaayoo ko jaay ci jey yaa soobu yoonu jannata nayni koloroyul jam jaaramaak jeyini saraagi tax na baragal nga yàlla rafet rafet njortu taxam nga yilla réewoo réyoo réeroo ne naa doo rummi doora mbaaj bu sabaali amoon nga faayda amoon nga fulla te amu fit am fitna yàlla fan la am nga kersa am karaama am nga ngërëm yow yaay borom maqaama amoo kañaan goree woon am bëli doo dox di cakkantoo kiituwaale marché ji ko misaali tuuti laaj leen ko maami soxna faati tuuti maam samba maryaama ma daa daw cem lef am da liman jaara moo ko taalif noon na bagaan gi woon ci soxna jaara mooy reerukaay bépp dongab daara mbande ma mustadey te dañ daarootaan mooy naanab kaay gaa yi dañ koy seetaan mësul a siis mësul dox di bodde mësul di wex wexloo ko dox di gëdde daawul werante ka xuloo na di moo tax selangul jur nga kuuy jur mbol di kuy daay maam sëriñ mamar moom jaara mbool dey di daam bu dagi tooñ mooy baara dangaa lewe nga ma njaboot ne cher di moo tax nga jur jàmbaar ji mel ne gaynde daaw la songante ka dox di daane aka defante tax na am nga waane wàcc nga jaajëf yaa selong lu busa yaa tax ba ni seeral guraa kabuusu siirul ci àjjana nawul iini naa lay muriti ak sa doom lil xiini gaañi naan ko jaaratul ilaaya maryaama mooy si turu mag bilaaya moo tax ñu naa la jaaratul ilaay maryaama mooy si turu mag bilaay ummu xalifatu rasulullaay muhammadin walde abdulaay umu imaamu awliyaaw laaw am nga maqaamati rijaalilaay am nga lu kenn amul bileehi maam jaaraneel alhamdulilahi maryaama fox ci muqinaatulaayi sa dooma gën ku jàngi bismilaayi moo donnu ahmadu abibulaayi moo ma sa gis amiinu wahyulaayi yaay turandoo maryaama ummu isaa saayidatu nisaaw waaw nga si isaa moo donnu isaa majru awlaay moo doon Muusa kalaamulaay moo doon xibramay xalilulaay moo doon xaadama shabiulaay tuubaa liman tabi ahlalaay waynun liman ankaroon bilaay lañu joxoon Muhammadul Mekkiyu mi ngi jox Muhammadul Mekkiyu lañu joxoon Muhammadul Mekkiyu mi ngi jox Muhammadul Mekkiyu مرحبا أم أحمد المكية وعز دين أحمد المكي مرحبا أم أحمد القديم قليل في البراغ لا يسومه مرحبا أخت أحمد المصاب كما زرت تعامنا توبي روبي tatay dojak yañ la defoon fa naayal sañam su musta doj te duñ ko ñaawal mu seebu koo sóoru ci réewi saalum te soxi tàkk mbaa kayit fulaayam yaa baaxu tur buso ca baaxu askan yàgg nañoo siyaare ngeen ci yoneen yaa rafetub juddu ca baaxi waajur ku xañ ci si diit di gisul ngor maam yaa gàddaaya jëree ki tooroo diine dolee te juboog lam tooroo mu seefu leena jiitu cig wilaaya mbaal quraan mbaa xam-xamub dilaaya daaw ñu fuukaree mbirum waliyu ngi ay sërif lañ ñooy doone xaliyu bamba ma lii sama naayab jant fenk ca ma mañ tudde ma maranda leer gi bawam bu soobe suuxi mbàkke royaat jaas kan wadi mbàkke mbàkke jant be fenk na lëndami bi di suux na suuxi leen mbar feeñ na samsu sumoosi doomi jant ak leer nga yow jarula misaal nde fes nga leer nga tembel bëreeroon te ñi di ko jeex feeñ na fa mbàkke léegi ñëpp di fa seex sayqu sooxi yaa di seexub seexi balul bu doori yaa weeru weeri kun mun faqiira yaay saqum doori siitu aqiyu darajal nga gooliw umul masaakiine dexul miskin yaa abol yatiimi yaay kenul jiriimi man aka mbàkke yaay samsu diine leer nga njaambur ak bawal ak siin digal nga càllalug abibu laay man bala xaysa weeru gan bilaay yaa tax ba képp ku setoo ci mbàkke bu ne juneet yàlla barke waa mbàkke sa ñankaak mbàkke bëri leer nga leen ñëpp ngi dox di waare waa mbàkke sa ñankaak mbàkke bëri leer nga leen ñëpp ngi dox di waare defar nga say bokk defar aw jaambur defar bawol defal kajoor ak njaambur defar nga say bokkoo defar aw jaambur defar bawol defal kajoor ak njaambur ñaata faloog ña doon boromi daara amuñu woon ku mel ne doomi jaara ñataan faloog ñi doon boromi daara amuñu woon ku mel doomi jaara